dama ci d'accord ak moom ci le fait que mu lànk loolu ak yooyu man dama jàpp ne warta nekk amul benn ku état war a tabaxal mm-hmm. <coughs> ay euh, këri gan wala di la héberger wala yu demee lu mu la nar a def na ko defar ci santé bi mu jariñ ñëpp comme ça jàmm ne ñooy mais euh, tey lii nga xam ne moo ci am sang sëñ sang njaay mi ne woon yàlla njaay la sant ñii di wax ni fu ñu nekkoon amet Khalifa Niass taxaw na fii ñu ne mag ñi xeex nangam mu ne fan lañ xeex ñii lañ jàpp sànk yóbbu ñii nàngam ak nangam nit ñaa ngi ne pat bi fi waa ji di taxaw alxuraan taaxuraan la am na nag ñu doon génn sëñ Ahmad Rafael sëñ professeur ak yi nu mu tudd sëñ Momar Diagne ak ñu mel noonu ak ñun ñii dañ daan génn di ñaawlu lee mais bari na tey koo gis tey ci dox bi foofu laay wax këru diine yi surtout Touba wala ñi xewle woon ndajam tey mi gis naa sëñ Cheikh Fatma discours bu responsable bi mu doxee mais ñi ciy boroxlu loolu lañ ci war a wàcc wàccax seen loxo ba mu dem Cheikh sa euh, Cheikh Omar Diagne dafa wax loo xam ne bi mu defee conférence loo xam ne man dama jàpp ne tegewul ci xam-xam parce que bu jàppee ne mbindu mag ñi lu ñu wa c'est améliorable lu ñu war a defaraat la na wane fi mu sikk ne fii la mënu ko mu noppi ci waaye jàpp ne seen mbind dafa sikk ba pare joxewoo solution yeneen yi muy joxe muy côté xam-xam loolu tontu ko ci moo gën a am solo parce que boo ko ci tontee comme ni ko sëñ Modou As tu defee dana xam ne moom ndekete njàngam soriwut loolu lislaam réglé na ko bu yàgg. mais quant loo xam ne dañ ko waxoon bu yàgg. nga ñëw di ko ci teg arrivé jusqu'à naan joomaay na ko dàq ak wala ne nàngam ak nangam yooyu yëpp ñu ci dugg man dama jàpp ne bu mbir di naqari nit daf lay naqari mais waroo cee dem di ci lënkaloo ak ay politiciens ak yu demee parce que dafa am lu mu commencé di niru ñi ko bëgg a défendre di ko layal dama jàpp ne dafa juum même bu mosee defendre sëñ tubaa wala nangam nag li mu wax sëñ Touba loolu ku respecté sañ tubaa du ko wax nit point. Serigne Mbacke Nourou la. waaw actualité boo jàpp rek bu la neexee bu la ci neex. waaw man ci Cheikh Omar ñëw toujours. bisimilah te wuuteeg saa wolof xalaat lool sax. Hmm. ndax li wolof di wax naan dara ñoru fi bañ koy macc hmm. gis nga gëm naa man sama gëm-gëm réew mi bu amee ay waasoo. ay xeex ay jëlantey bakkan ci affaireu tariixa lay bàyyi ko ndax dañ koo yanu yanu gu toll noo xam ne dañoo xamut réalité lan mooy tariixa gis nga tariixa avant muy sampe fii ci senegal ñun nekk nga fi sant Njaay ma nekk fi sant Jóob kii sant fi ñang kii sant Faal ñu bokkoon nekk ay mbokk daan mayante suñuy doom di takkante sunu biir dëkkee dëkkin wu rafet di demalante ay mbokk mm-hmm. loolu moo jiitu tariixa de buñ ko fàtte moo fi jiitu sax diine dëkkin woowa ba tey loolu lañ war a saxal tariixa bi mu ñëwee yàqu loolu de daf ko gën a dooleel ku xam sëriñ tuubaa ak ci politique bi mu daan def bu silvisé xam ne mësta def dara luy xaajale kon tey buñ demee ba yegg si fii nit kuy wax da ngay natt aka xool la muy wax ak fa muy waxee Cheikh Omar Diagne du ma nangu nit ku koy tuutal du ma nangu nit ku koy attaqué du ma nangu nit kuy dal ci kawam ndax borom xam-xam la bu wér ku am xam-xam te xam li muy wax te nangoo sonn nangoo taxawu réew mi am na xalaat ak gis-gisam wax ko ci réew mi mais yow loo Sénégal li ñu jàpp boo nee yàlla laa gëm ak yonante bi la mun ñu ne kon yow baaxoo boo nee foo ko teg ñu ne da ngaa war a gëm sëriñ diw gëm sëriñ dafa nekk force ci diine yàlla lu mu wax wa atiiu llaaha wa atiiu rasuula topp leen ma man yàlla ngeen topp sama yónnante bu fekkee am na ku ciy topp xam nga kan la wa qadee rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaanan bu ngeen matalee seen i jaam yàlla def li ngeen war a def topp leen seen ñaari wayjur topp sëriñ du farata surtout sëriñ si léegi si nag ñoo tax may wax sëriñ Touba mësta ànd ak kuy tappale mësta ànd ak kuy sàcc mësta ànd ak kuy def lenn loo xam ne lu wuuteeg diine la bari na ñu ñuy tudd di tudd sëriñ Touba la nekkoon ak la sëriñ Touba nekk dafa soree tot bu sa Dieng nan la mën a génnee taxaw ci internet bi yàq Cheikh Omar Diagne lu mel ni xeme wax ko wax ju bon ju ñaaw ju arrogant simple politicien boo xam ne biiram képp moo ko ñor gox ba mu dëkk jëriñu ko jëriñul am réewoon ah, bi ñuy rey sénégalais yi di leen torturer fii mi ngi fii na pat état bi toog mu leen di menacé ci ay système am di jaay xel mu rëy mhm. dama koy xamal ne yëwwut nit ki yow mooy ki am xam-xamam di jariñ réewam bu dee sa biir bii rek moo la ñor mel ni Yirim sekk wala mel ni Ahmed xalifa ñas wala mel ni ma Madiambal Diagne ñooñu seeni biir moo leen ñor réew mi dégluwuñ ñooñu. benn lañ rek. réew mi ñi ñuy déglu mooy ki taxawoon joxe bakkanam. Mm-hmm. mel ni Ousmane Sonko ki tëdd ci kaso bi un mel ni président Diomaye ñi taxawoon fii ci mbedd yi di reyante na kenn du nu not. Mm-hmm. te bañ koy def sëriñ saa ngi ci biir kër yi tëdd amul benn sëriñ boo xam ne nag génn naa la ci. ndax bu dee da am da ngaa jiite mbooloo ñu yaakaar la ñuy dóor ci mbooloo mi di leen tëj a rey nga ne patt ca loola man de moo lay yaakaar ci àdduna da taxaw ci samay aajo. di ma taxawu ca kem nam ware ma sañ ma sañ laa yaakaar àllaaxira bu du loolu nga demal sa bopp ma demal sama bopp yàllaa fi nekkal ñëpp yàllaa sàkk ñëpp du ma nangu nag un problème boo xam ne Cheikh Omar Diagne moo ko am benn hmm. ñu bëgg a jël tariixa murit bi yëpp dóor ko ci kawam am Cheikh Omar Diagne indi Cheikh Omar Diagne ku nekk di ko attaqué wax ju bon ju nekk ñu koy wax ñoom ñu koy wax dañ ko gën wala dañu jàpp ne sëriñ siñ yaakaar dañoo gën Cheikh Omar Diagne kaana naasu ummatan waahida nit ñëpp wenn xeet lañ amul kenn ku gën kenn nit ñi kenn moo leen gën muy muhammadu rasulillahi man bokk ku dul yonent bi nanguuma nga gën ma maa moom sama bopp bu ma neexee ma gëm sëriñ bu ma neexee ma gëm tarixa bu ma neexee duma ci gëm benn boo nee ibaadu la ñu ne danga bon ibaadu bonul ci yàlla la jëm ñaseen bi bonul tijaan bi bu murit bi bonul nañ boole suñu xol yi te bàyyi féewalont bi bu kenn nit waxee da ngay gis Cheikh Omar Diagne fi mu ne wax na ba jeexal tuddul Serigne Touba waaye ñi ngi naan dafa noonoo Serigne Touba dafa bañ Serigne ñoom ñooy utal Serigne Touba ay noonu Serigne Touba amul Cheikh Omar Diagne xamante wut ak Sëñ Tuubaa fekkante wut ak moom jamono sax ba koy noonoo li muy wax ci xam-xam la ko teg ku koy tontu nga tontu ko ci xam-xam Cheikh Omar Diagne ba jóg jotee dafa jógoon di xeexal réew mi mësta toog na patt wala mu bokk ci tappalekat yi Sénégalais yi nag yëwuñ te xamuñu li ñuy xeex bañ leen di nota ko dumaaka torturé booba sëriñ si ñu ngi fi kamul kenn ku wax man xam naa sama benn xarit boo xam ne dañ koo tëj police ay jafe-jafe yoo xam ne laale wu ca taqiwu ca nekk na ci kasu ba gént daw tàqali ko ab sëriñam sëriñam ba tegu fa ab tànkam ba mu génnee dama ne ko bàyyi ko kii lu dul dimbale adduna du la dimbale alaxira te loolu mooy dëgg Cheikh Omar Diagne maa ngi ci sa ginnaaw Cheikh Omar Diagne bul deltu ginnaaw Cheikh Omar Diagne bul reculer ci li nga wax yaa nekk ci dëgg képp ku nar a dal ci sa kaw man ak yow lay boole d'accord taxawal fi nga taxaw. ñi dëggu ñëpp ñu ngi ci sa ginnaaw. li mu wax lu borom xam-xam la li muy wax. xam conférence bi maanaam li mu wax ne ci kii bi. non déet damaa bëgg a. buñ buñ buñ nekk. ah déet non damay laajte rek. non non non man non man non. waaw non bu ma tontoo man ma wax. xam nga man li Cheikh Omar wax ne. Cheikh Omar li mu wax la bu mars. par exemple buñ tolloon foofu fan lañ war a julli mais loolu l'islam daf ko daf sariya daf ko réglé. bu yàgg a yàgg a loolu boo boo loolu loolu loolu taxul muy xam-xam. boo demoon ci géej képp xamatoo foo nekk yow fi nga fii xibla fi nga jàpp mooy xibla mooy sa xibla sa ke nañ bàyyi doom technologie ba la yóbbu mars moo la xamal ne la plan non man damaa bëgg moom it damaa bëgg ñi mu àndal taas bi non may ma parce que bu ñu la toppee du Modou Bousso Dieng da lay topp di la porter plainte nga daal def conférence balaa laa naan mbindum mag ñeg yooyu yooyu noonu xam nga jibi ma teewu laa doxal li nga war a doxal jibi xam nga bu ñun tamit am na sëriñ soo xam ne fii lañ taxawoon naan Ousmane Sonko ay loolu moom d'accord ñu ngi taxaw di naan dañ koy jéem a weng wengal di wut fu ñuy jaar. am na ñu fi organiser naan dañuy def manifestation masaalikul naan ñoom ñëpp ay naa naafeq lañ masaalikul jinaan tabaxuñ ko pour nit di fa manifester wu. gis naa ci koo xam ne ab fecckat la ñu koy tudd di tudd ay góor jigéen mu taxaw fa ñu koy dékk micro. Ah. maanaam dañuy fawe yoonu murid li Serigne Touba nekkoon ak ñoom liñ nekk dafa soree sëriñ Touba tarbiya la nekkoon toj ay dëkk seexal ay nit kañ nga gëj gi yëgg ñu taxawal taalibe boo xam ne ak muritam wér na. muy taxawu sëriñ tubaa fa mu nekk ñu seexal ko ngir yokk yoon wi mennum Serigne Mamour mu Serigne Mourtala laa xam koo xam ne bu Serigne Touba ñëwoon du sopp aw doxalinam ndax li maamam nekkoon lépp amul dara loo xam ne lu ci wàññi la dafa koy doxal kon nañu bàyyi. buruxlu bi ak ña doon xeex xeex ba démb tey ñoo jël ñii di leen door di dal ci kaw Cheikh Omar Diagne di profito gars yi nañ yew ta xàmmee te ràññeet le d'accord euh, Serigne Niang mhm. say deux minutes ngir actuel boo jàpp rek comme ni nga ko dooree woon ko waaw bon jàpp naa ni mi maanaam parce que man Cheikh Omar xam naa ko bokk naa ak moom lu toll si at ñu bokk plateau di ko partagé di wax des nag certes dina wax loo xamante ni mën naa si bañ a ànd ak moom itam loolu sax mooy débat d'idée waaw loolu dama ci dama ñu wax ma bañ ci ànd ak moom en réalité parce que xam nga mbir mi aussi. Mm-hmm. Euh, il y a des politiciens tapis dans l'ombre voilà. quoi que l'on si mm-hmm. biir. Mm-hmm. parce que bu ñu demee ni ne président de la république wàccee Cheikh Omar Ousmane Sonko ak euh, premier ministre Ousmane Sonko ak président de la République Diomaye wane nañ cofeel ak yëg-yëg gu ñu wane gu ñu gu ñu féetale ci euh, communauté mouride loolu on en disconvient d'autant mm-hmm. plus que mm-hmm. wax yu bëree yi ñu indi saa wax na ko léegi wax yu yàgg la mm-hmm. yoo xamante ni engagé wu leen Cheikh Omar c'est quelqu'un bu yor mouvement am xaw ma parti politique bu allié ak Pastef di liggéey. taxawaayam ci réew mi kooku dootuñu ko natable ak position mais dama bëgg a wax nii rek am na yenn kàddu yoo xamante ni ji bi nañ ko di moytu parce que Sénégal réew la moo xamante ni ci le côté diine réew mu sensible la ci côté boobu. Mm-hmm. nit ñi des fois pour euh, pour euh, pour euh, toucher seen sensibilité. ci mm-hmm. matière boobu dafay xaw a. dafay yomb sax xam nga malhonnêteté weesuwut ñu ne na président de la république wàcce Cheikh Omar Diagne. mais dama ne la ñëkk di wax tey fan la ñu nekkoon ba ki nga xamante ni moo njëkk jël ay saaga dendale ko tarixa yi muy Souleymane Jules Diop bi ko Macky Sall di jox ay responsabilité Moustapha Diakhaté Moustapha Diakhaté barki yonent bi kasut ñëpp ah. Ah. est-ce que yaa ngi dégg non Souleymane Jules sax sëñ Abdou Aziz Sy ñor ak gën a garaaw te est que boobu ci jamono yooyu déggoon nga kenn ku jóg ah. ne respon Macky Sall ñëw def ko ministre Macky Sall def ko ministre tu as vu ñoom Kaliphone lu ne yàq nañ ko fi nit te ba ñu ñëwee dañu leen a yaatal ci réew mi. ki naan alxuraan taaxuraan. est-ce que yaa ngi dégg kon jàpp naa ni dafa am. malhonnêteté malhonnêteté boo xamante ni des fois ak politiciens yoo xamante ni xam nga quand j'entends véritablement un homme politique qui aspire à diriger sa pays. Hmm. di wax ni murid yi jóg leen. te yow ëllëg nga ni dama bëgg a nekk. le ah, père de la ah, nation. Ah. nga xam ni dëkk bi bu tissu social bi doon tas yaa ko war a dajale. c'est tellement grave xam nga am na ñoo xam nee nañ propos yi Cheikh Omar di yëkkati mën naa taalum réew alors que ñoom la wax moo mën a taalum réew kon dama jàpp ni réew mi mhm. am na foo xam bu fa tolloo dañu war a waxtaan pour lu gën a boole xol yi ak lu gën a tàppe nit ñi parce que président loolu la def président Bassirou mi lu ne wax nañ ko ko gëmul murid yi mhm. gëmu leen wax nañ ko Sonko mi ñaata yoon lañ ko montel ay vidéo ne nee lii du fi amati lii du fi amati lii du fi amati mhm. te effectivement gis nga nañ nañu doxalee démentir na loolu kon jàpp naa ni politiciens yi nga xamante ni aujourd'hui nañu politique indi un débat d'idées de mm. qualité. parce que am na yoo xamante ni. Mm. en réalité malhonnêteté rek moo lalu ci ginnaaw. Mm. te TFM tamit war nañ leen a mettre en garde <laughs> ndax bind lañ ca bindoon lañ ca journaloon moo waral coow lii lépp te di wax ci yu sensible yooyu mën na taal am réew dëgg la te ñoom ñoo indi problème bi ak polémique bi yëpp ña nga ne toog seenu bopp mel ni yëguñu tinuñu en tout cas il faut que yooyu ñu di ko dénoncer di ko wax en tout cas merci beaucoup ndaxte njeexitalu émission bi man deux minutes dama ci bokk mais d'habitude du ma ko joxe <laughs> mais dama jot ñu may interpeller ñoo xam xëy na dañ lay suivre ñoo xam say soppe lañ moo xam lu mën ci doon di la laaj sa xalaat par rapport à ça mm-hmm. man nag par principe mm-hmm. et en raison des liens que j'ai avec les deux côté mm-hmm. c'est-à-dire la communauté mouride ak Cheikh Oumar Diagne moo tax man personnellement du ma ci mën a wax mais je tenais vraiment à préciser une chose lan ah kum ci mën di doon ci àdduna hmm. donc nañuy moytu rek loo xamante ni suñ ko waxee nit ñëpp mën nañoo féewale voilà loolu man mooy sama sama sama xalaat ci mbir yi waaye daak am ci beneen précision bu may def mooy am na benn vidéo bu may gis mu circuler en ce moment benn bi mu ngi date mu ngi daté 12 avril 2021 su ma hmm, juumul 2021 hmm, et c'était man mii ak moom Cheikh Oumar Diagne ak suma beneen naataango Mouhamed Samb ñun ñett ñoo doon def émission. loolu kon lu leer. loolu ci weeru koor la woon. Mhm. quand on parlait de croissant lunaire. Mhm. ak homosexualité ci bi ñuy wax takk mu tombe woon ak ay booru gée. Mhm. weer wi ñu ne feeñ na. ma posé ko question ñu débattre ci. loolu c'était depuis le 12 avril 2021 ci fenn fu ñu doon defee ay émission man. Cheikh Oumar Diagne ak Mouhamed Samb ñu ko doon woowee Equivox TV. Mhm. donc am na benn video bu muy gën a gis muy. circulé mi ngi circulé boobu moom yàgg na.

man li ma jàpp mooy. vidéo bi conférence bi mu defaat xaj na moo yëkkatiwaat mbir mi. waaye loola it la ko yëkkatiwaat bu ma doon moom kenn dafay amul droit wax. waaw mais waaw mais conférence ba la mu ca wax man d' ma ci d' waaw waaw xam ne yow yaa ngi koy wax waaw nga tey boo nee ah, mbindum mag ñi c'est améliorable xam nga xam nga tey loolu boo ci yeggee loolu est-ce que soxla na bàyyi critique bi non non non moom dafa critiqué ki <laughs> fekk leen di jaajëfal ñoom ñëpp sa olof cax la cax non non bii moom dafa kii voilà mi ngi noonu muy laaxub daaw buñ koy soow ba ren ci fay laa ci faay laa tax xanaa sëñ Bakary moom doomam daal. Ah, man de mën nga maa bañ a laaj. ndax laaxub daaw xëy na ci man. bés koy soow ba ren ci faay laa tax. ah. loolu xanaa lu waay lu waay doon def daaw mu jig la dafa fekk. loolu laax mooy lan boobu defe naa. ah man de laax mooy lan ah, laax mooy laax bi ñuy lekk waaw. koy soow ba soow boobu. waaw. Ah. mooy neexaay bi rek. maanaam buñ koy coow. ba ren ah. ci fay laa tax loolu métaphore la waaw métaphore dafa ah kay dafa boole ñaar maam dafa régler problème bi ah, maanaam <laughs> déggal nuuru laa <laughs> voilà maanaam laa neexaay ba mën naa tax parce ci fay laa tax naqariwaay ba it ba dawoon biir yi. saa yi doo ñu daw biiru nit ñi ak loo wax sëñ ak yi demee noonu mën naa tax moo tax. <laughs> yàlla nañu yàlla dimbale rek. <laughs> parce que suñu waxu tey wala suñu jëfu tey mën naa doon suñu jëwee ëllëg kenn mucc ci nag. dëgg la ah, kenn ku nekk war nga ci jël bind rek te ñu bàyyi mu jàll quoi. ban moomu euh, xam ne waaw baat bi nga xam ne tey moom laay wax mooy li ñuy wax. société comme tey nga naan société mu ma baat bi gis naa ni nga may corriger d'une manière très laay laaj ni ñu koy waxee ci wolof très poli maanaam société société société comme société sénégalaise ah yooyu laa wax ah. quoi. man de société. comme nga ne askan. non askan leneen la. Ah. <laughs> société mooy mboolaay gi. Ah, mboolaay mboolaay. <laughs> mooy mbooloo <laughs> mooy mbooloo mboolaay. jërëjëf Saa Wolof mbooloo mi mooy mbooloo mii rek société mooy mboolaay bi. waaw ah, sociologue mooy moom su ma benn yaay bu nekk ca Bordeaux nee na ma tey nag wax dëgg yàlla. Mm-hmm. nii la ma ko bindalee noonu laa la koy wax mu ne ma yaa dàq solo Saa Wolof. <laughs> dalaa faral waaye déedéet bàyyil jeexital ma ne mu ne ma Salim sol rafet na ma ne ko dañ ko ko abal mu ne ma déedéet mu ne ma yaa ko dàq solo waaye tey nangul ko ne lim sol moo dàq li nga sol. dëgg dëgg lii de Mahmoud moo fi jaar. waaw bu ngeen ko bëggee rek. Hmm. def leen ceddo création. Ah. ma ñawal la ci bu baax. affaire de ceddo la lii. waaw ah, ceddo création sama sama collection la léegi. bu ma solo. ah d'accord li ma li ma lay kii yëpp nekk sa noonu lépp na. <laughs> mi ngi lay ziar sama yaay. <laughs> ah yaay booy yàlla na yàlla def fanu gudd ak wér gu yaram mu am kàttan lool ànd ak ñun di ñu gunge jërëjëf Sawalam ñu dem na ba aseerum jàmm. Mhm. ok jërëjëf jaajëf Serigne la beneen yoon. Mhm. incha allah bu neexee borom bi waaw sabdu bu jot rek. waaw Serigne Niang jërëjëf. merci